Boy ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay tur bi naka la fan ndaw laa tudd ndaw mën nga ñu wax tuuti lan ngay dund parce que ñëw nañ fekk la ci naqar ak métit dama jënd kër maa daw di ko jënd bi ma jëndee kër gi sax dafa yàgg léegi foofu nekk ñu tuddee quartier bi Médina Gasson ñu di ñu toxal recensement bés biñ ma jëlee ma dem màggali Kazu Rajab fa lañ ma wooyee sama doom gaañu ma jëm fa ma dëkk noonu Kaffrine may toog ci dëj bi ñu woo ma alxames ne ma ñu ngi séddale kër yi dawal ñëw ma daw ñëw munu ma fekkee bésu alxames bi ñuy séddalee fekkee ko ma daw ñëw bi ma dawee ñëw ma dem fekk ku ne taxaw ci saw euh, parcelle ku ne taxaw ma dikk yegsi ne man de sama kër laay laaj ki ma bokkaloon borno bi ne ma sa kër a ngi kay ñeneen ñi dik taxaw ne fa ndaw fa ndaw nga tuddu man amu mu ne sa kër nga yow man tam ma jël xeer ni ñom teg suba ba guma xëyee seeti kër gi alaaji ba préfet bu yëmbal moko dugal ma daw dem ci mom mu ne ma demal le 10 da nga jot sa kër ma daw dem ma ne ko ci kumay dem ma daw mu ne ma demal ci Moussa Ndiaye ñu jox la sa kër ma daw dem dik ni ko Moussa dañ ne am sama kër tour dugg na préfet bi moma ma fi yebal mu ne mu ne ma waaw mu bi paas ñet ñent ne sa boso ngi nii bés ordinateur bi ci ñentel ne mi ngi ne ko waaw dem bes bi del si ma jël sama dom yobbu mu bi comme nonu rek won ko sama dom bi gis ko bim ko gisee ne lim la waxon la yaay deug la mi ngi ni ma ñew tok le dis bu ma waxon suba gu ma daw dem suma ma dem ñu ne ma togal suma dem pour ma gis eh, préfet bi duñ nanguma ma dugg ci biir Moussa Ndiaye photo yom yooyu maa ko dagg su ma rek dem na ci photo yi di tok suma su rek dem na mang nonu mang nonu ba benn bes ñu ne ma demal indi sey kayit ma jël sama kayit kër gi ak sama dante photocopie nga ma tek di gën indi ma yegg bi ma ñëwee ñuy jox nit ñi ma ñëw mu ne ma yow de fàndaw ñu am ku ma ne fàndaw xam nga man xàmmeewu ma leen ñoom ñii ñëpp ña fa fekk naa même moom mii ñoom ñii ñëpp sax mujj gi sax laa ràññee jafandu ci moom moom ak madame Ndaw mujj gi laa leen ràññee jafandu ci moom dégg nga ma ne ko ñu ne ma yow kat resiti nañ la dañ laa bëggoon a jox jaxaay waaye yow ci list bii ñuy joxe jaxaay manoo cee dugg ndax recité nañ la ne am nga kër aseg naa mille cinq 2005 dootul ma rëcc ba tey ñu ne ma am nga kër aseg naa 2005 ma ne leen man de mënuma jotu ma ñu ne ma am nga ma ne aw ma su bëgguma xëyee nag di ko ferankulaayu préfecture pour ba xam danañ ma jox fii wala fee dégg nga ñu ne am nga kër mille 2005 boobu. ba legui nak sama tank bi noppalu ba ci weer wu dee wi rek la muy préfecture ma dama dem sax tok di xaar ak seen préfet bi pour mu génn mu jigi sama xol bi jeex am ku génn ne ma budé Souleymane Faye nga yaakar pour mu jox la kër do am kër ma ne may xaar ki na dem ñibbi ma ñëw nak nak dematuma fenn tok suma ja wana Alpha wax ko fuma tourner wana Alpha wana madame Ndaw ne len dimbalé len ma sonna na sama dom bu gor bi xale la fi ne di bi ba alfa way dama ko wo ma ga daw ni ci tata yi ci tata yi la ne liggey liggey bu bax da fay courant fay ndox ba may liggey de dem de len liggey le man na manatuma liggey teug dana de xalat ba ni nirootuma ni fetale wuñ ma nak fenn fi ne nangu na kër ga ban dem tabax ko ba miré ko kayitu das ko si laa leen bëggoon a wan ak yëpp miire kër ga jël buntu monte ca bi mu même police yëmbal bi nee na kooku maire Fandaw moo moom kër gi kale chef de quartier bi remplacé Mayoro gannaaw dee na jàppale kee kooku mata la tudd man la laa tudd Fandaw ak Fatoumata bokkuñ chef de quartier Mayoro ma toogoon ñuy bëgg a def plan pour jël kër gi ba tey kee toog moo raw euh, Mayoro ñu ne ko yow yaa moom kër gi digal toj ko jox ko autorisation moom moo ko sant ne ko tabaxal te moom moom moo ma yóbbu Descos man du ma yóbbu kenn ma yoroon moom toppoon naa ceeg moom ay moom ñoom ñii jotu ma ñoom dara mu yóbbu mag indil ma këyit Descos indi yóbbu na ma wiise kayit yëpp a ngi ma denc moom kooku saa jaw la tudd saak jaw xaw ma moo jàpp moo ne ci gannaaw fandaw am xaalis di ko jàppale comme ma takkoon ci kii mu dama jàppale dama defal lu dama financer xaalisam sama lama ma tabaxoon ak buntu ya ma jëndoon def ci ak yëpp nangu nañ ko toj nañ tabax ba ma fa mujjee dem ci chef ji quartier ba Moussa njaay lan la ma wax préfecture ba ma fa mujjee gis ma tax ma da ñibbise doo am buli Souleymane Faye lay jox ma ne ko yow nag mu kër gi demee xam nga ko ndax bañ ko dugalee ci ordinateur ba yow lañ ne la fa ndaw bu dikkee te bañ la wooyee laaj la danga ne leen maire bii laa xam moo daan ñëw ci man. féetale wuñ ma fenn Moussa Ndiaye fu gi dugg xam na ci dara moo Souleymane Faye te sama kayit yi ma ko jëndee ngi damaa jënd 2005 nag la lañ ma jox këru ase ak naaga ma topp naa ko it nag fukki at yi ba mu mat kenn laalu ko ba ma tabaxee nag chef du quartier bu bees bee dem faral ñi ñi ne ñoo ko jand ah faral ko ne ko tojal tabaxam bi tabax ma tëdd de xalaat loolu fii nga fi mu ne nii sama doom yi sax suñ ma soree du yàgg ñu dañuy dikk seet ma toog de xalaat de jooy. ndax man mënatuma liggéey lu ma may kër mën naa laa génneel kayitu këru Kaffrine kii sama doom la ñaari kër benn ba jaay naa ko woon bu yàgg mënuma wax année mille neuf cent quatre-vingt ñaar fukki at yu manqué benn daal ci laa jëndoon télé bii sax waaye yëpp maa ngi daw Mauritanie Gambie am naa xaalis kër gu njëkk ga ba ma koy jaay waaye benn baa nga fi man moom laa la bëgg woon kay di yëpp ma nekk ak jafe-jafe doom yi duñ da ngay dem Kaffrine doom yi duñ dem Kaffrine ndax kii ba muy bootu laa ko fi indi lamin dem na ci fanweeri at walla ñeen fukk léegi mu jege ko mooy sama ci at fii la juddoo ci raay bi loolu fi ñu wàccee pont bi noonu lañ dëkk moo doon suñ kër dama fa luye woon nag fanweeri at ak juróom benn ne bu ma génnee ci kër gii ma luyee rek damay dem ñibbi sama kër mënuma am dëkkuwaay sonnoon naa fa coono yem suba gu gone ne ma demal tës sama sama sama doomi càmmeñ yi suba gune ma ne ma man tee maa dem ca euh, Macky Sall mënu ma cee jot man tee maa dem ci sëñ Abdou Karim démb rek laay jooy ne damay dem ci sëñ Abdou Karim mu dimbale ma fu sama balaa maa dee sama doom yi am fuñ dëkk man balaa maa dee sama doom yi ma wutal dëkk sëñ Abdou Karim laa yendu foto baa nga ne mu wéer ca dégg ko kii nga ko jël dugal néegu ma ne damay dem ci sëñ Abdou Karim ñu dimbali ma sonn naa naka nangu nañ ko manuma de yéeg de wàcc manuma ko manuma ko benn bu góor bu ndaw bien ah man ñii jigéen lañ kii bu ma la wanee photo yi nga ne du moom photo yëpp nga ne ca kaw xam nga ne maamee bagage fii bu ñu waxee rek ma ne la waañ la mooy waañ mu ndax fii la ñuy toggee fii ñuy jaar réeréew ak i bagages yi néeg rek li ma ci am ma la ko wax mënu ma la ko laajal sama doom jàngi du ma fen lay du ma fen du ma fen sët bii ba ma koy ngénte fir firgo bu bees baag photo yooyu dugg ndax daal ba daanu ñu daw dikk fii te kii dañu aaye kër gi kii dañu aaye. kër gi ngeen di nekk nii da ngeen fi fay. da fay damay apis la kayit Ndiobo la mi ami jox ma kayitu apis apis jox nañu sax da koy toj. tali boobu ngeen wàcc nii fi mu ne day dugg si nii jam jàmm ga ñuy toj te am naa kayitu APS xaw ma tey la ñuy dikk wala suba damay fay russie yaag yëpp laa leen jox keroog ñu doon recensé fii lañ toog photo woog sama goro yi ci néeg bi li may daj jànq bi mënuma la ko wax sax yëpp li ma naqari yëpp ma ko wax ci télé bi ndax lii bugg sama waa kër yi sant nañ ma ko ma ne di déedéet naa yoo dem ca sëñ Abdou Karim damay nëbbutu dem ca ñoom munuma jot ci Macky Sall munuma jot ci jabar way son la def euh instant yi ban appel ngay lancer ndimbal bëgg na ndimbal bu ma mënee jot ci sama kër yi jot ci mako jënd de mako janda jënd kër yi la la bëgg won ma jënd sama kër mako daw yoonu Banjul yoonu Mauritanie su ma suñ mag do jot ci kër ga su ma ma dimbal dimbal la doon wuti ci sëñ Abdou Karim daw dem na ñaan lu rek joxe bitel bi mu ñaanal ma waye ma dem wax ko lima nakari dimb rek la tok ne damay dem ci sëñ Abdou Karim dama sama doom ya amuñ nijaay amuñ tanta mo ma aw mak amo borom kër amna borom kër maa génn papa sama caan mi ma genn mooy solo sama papa sagari njaam famille lañ Saalum sëyu famille la ñuy def sama doom yi maay seen jaam moom mii ba ma koy ngénte bu mala la wanee caméra yeeg yëpp maa doon jàmb buumu nag yaag yëpp man lañ ko joxoon wallaay maay seen jaam sëyu ñun sëyu famille la ñuy def wóor na yàlla waaye coono bi ma nekk fi mu ne dama rus sax du ma bëgg waa Saalum kenn dikk fi sama rakk yi ne dama ne leen manu leen a dikk ndax caaroy tooñ nañ ko amatuñu yoon ndeg rek bañ ko dikk fekk ma fii

tur bi naka la. Tidiane Mbaye Labba Ba. yow danga nga dëkkoon fu amoon euh, ndox. waaw ci quartier Coly Senghor fii ci Géejuwaay foofu la ñu dikkoon foofu nag yàlla def après euh, euh, ndok dugg foofu ba suñu ndaal yi ñu rootoon ba fees di ñu fay ci kaw après ba mujj muy dugg ci biir perron bi. ci biir nekk yi yëpp dugga foofu yëpp ñu génne foofu nag après ñu dem luyi euh, bi ñuy dem luyi nag après ñu nguur bi ñëw pour ñi ndox génne seen kër génne leen seen kër après ñu ñëw ñu toj kër yi euh, nun na nag boobu be léegi mu ne dañu ñu jokk feneen kër jakaay dafa jakaay pour ñu jóguñu ñu dem ba topp suñu dossier ba topp suñu kayit kir bee ñu defar ko yëpp ba pare man euh, sama kir madame Ndaw moo ci lokam la jaar moo ko liggéey ba pare mu ne dem na ba ministère léegi dem nañu ba foofu bi ñu defari ñu ba yëpp pare na teg ko ci loko ministère boobu ba léegi nag mu ne ministère nag ñoom ñoo war a jokki kir yi léegi nag boobu ba léegi noo ngi toog bu ñu wooxee rek mu ne ñoo ngi ci nangam nangam nangam be am saa sak madam Ndaw mu ne ma nun dem nañu ci jàkkaay e, fekk ñeneen ñu joge feneen moomuñu kir defuñ dara ñu doon loye rek gis kir yi pare rek def foofu ñu ñëw ubbi dëkk ubbi dëkk ci biir kir yi yëpp ba pare be ñu ne sax ñoom kenn mënu leen génne il faut ñu ngi ci def ay gàllaaj ak yooyu daal affaire liggéey ak yooyu e, mu ne na ngeen ci def ñaan boo bu ngeen ci deful ñaan daal mbir bi dafa doy waar waaw léegi nag ñeneen ñoo ñëw dëkk ci biir kii am na ñi nga xam ne ñooy dëkk ci biir kii kaw ma nag euh, lii ñu dëkk foofu foofu am na délégué quartier bi ñuy def réunion ñu def délégué quartier ñu tànn euh, quartier Coly Senghor ak quartier Mamour Diop ak ñeneen ñoom ñëpp délégué quartier yooyu ñu tànn Mamour Diop Mamour Diop après ñu jokk liste bi dem nañu ba ci Mamour Diop mu ne ma sa kir liste bi moo ngi fi turam moo ngi fi sa tur moo ngi fi sa kir moo ngi fi waaye nguuru bi dafa wax ne euh, bu ñu jo bu ñu jog kenn ba ñu seet ñeneen ñi ñëw dikka ci biir kir gi bu ñu nu woon kenn euh, niimara kiram pour ñu dem foofu fekk ñu fi dikk ñu keek ak ñoom euh, après euh, loolu yoon may nu ko waaw euh, loolu dem naa ba ma jël a taxi fekk wéruma nag wérum juróomi at maa ngi ni wérum maa ngi nekk ci lu am ay sama njaboot am ay njaboot yi nga xam ne maa leen di yor sama setaka yëpp daal en ñoo ngi fii ci man ci man la yaru ba màgg eh, maa ngi dikk ci lu yaas di juróomi at maa ngi ni tëdd billahi wallahi benn côté laa tidde côté ndeyjoor bi rek mënuma tidde càmmooñ mënuma jaakaar guddee ko bëccëg nag waaw te sama doom yi mooy ame ñoom itam yàlla ubbi wu leen pour liggéey pour mun ma aw dégg nga euh, man rek maa ci euh, sabablu pour lu yaasu yeeg facture courant yeeg facture ndox yeeg dépasse yeeg yëpp daal sama yaay kale yii nag dafa góorgóorlu yàlla def mu ngi dem marché bis bu ne day kay dem caaroñ dugg foofu dem marché bu bees di jaay après euh, cin bi bu takke yàlla ka loolu dégg nga eh, maa ngi nii mënatuma dama doon daan tukki dem fu ne fii Gambie ka yeneen ak Mauritanie ka yëpp waaye mënatuma dem ñi doon woo foofu moo ñëw foofu man taaliba euh, aw ma retraite waaw musuma liggéey weeru tubaak ba mu am euh, retraite musul am waaw euh, léegi nag yàlla rek ak ah, alquran bi mu bi jàng rek waaw loolu la léegi nag euh, sonna naa daal wax dëgg yàlla sonna naa sonna naa ba mujjam mu dem nañu fi ba bir asalim ñu wax ñu ne léegi daal seen kër yi ñu ma jokke yimo keson joke joke naa ko waaye yéen bokku ci maak aka ah, mm, silla maka aka Hussein silla euh, dem nañu ba foofu nun ñaar rek la des ci quartier Koli Senghor ñu ñu jotuñu seen kër waaw dem foofu mu ne daal na ngeen fekk bi ngeen gis Alpha Mbengue mbaa mel ne moom ngeen dem mbaa euh, ngir laaj seen dossier ñoo ngi foofu egg si wuñu fi ndigal pour ñu jokkee lii léegi nag euh, boobu ci loolu yàlla def euh, ku baax bi ñu gis moom euh, fekk nag Silla Kamantaka Alpha Mbengue waaw léegi nag yàlla def moom itam mu dem bi ci gis Alpha Mbengue waxtaan ak moom ba ñu ànd ba ñëw fi mu ne ko am na góor goo xam ne moom itam dafa sonn waaw suñu mbokk la suñu dikkandoo la eh, alhamdulilahi tabarakallah wasan kaal gi nañu ñëw fi am yar am teggin am yene am kol bu rafet wax ma ci lu bari waaw man tam eh maa ngi toog rek kaar ci am na ñuy wax ne na mu dem set eh, bu mi gisee foofu kër gu ken dikul, pour mu dugg foofu mu dugal sama njaboot eh, dugal sama jabot ak yooyu daal yëpp ma ko man loolu lu mu nguuru jokkul du ma ko def waaw waaw du ko def mënu ma ko mënu ma dem foofu di kii nit ñi pour euh, mu dugg ci kër goo xam ne jokku ñu ma waaw bu doon sama sago li ma li moom nekk numéro bi nekk sama dosi kër moom la ñu ma jokk mu dikk ci mbaa fekk nguur bi mooy digale nañu ko jokk kër benn lijjanti waaw benn lijjanti bu fekkee ne jog nañu euh, ba mu lijjanti loolu nangu naa ko ma dem foofu ndaka munatuma mbir bi dafa doy waar munatuma ki boo jisee nii boo gisee demomu juma feebar boobu moo tax juróomi at moo ngi nii duma dem jàkk duma dem juma te moo ngi nii te kuréel yi la bokk ci imam yi la bokk dama doon jeeti juma fu mu munti dëkk dama doon jeeti euh, foofu ci jàkka yi ay léegi loolu daal moo nu dab daal en tout cas eh noo ngi wakkirlu ci yàlla nag euh, ba tey noo ngi am yaakaar ci gouvernement bi ndax ñoo ngi dimbali e, li ci des nag ki nga xam ne mooy kilifa bi mooy président de la république moom digale rek la mun day dikkale ñooñu bu ñu defee li ñu li mu dikkale moom maye na moo wàkk ne kir yi yëpp man dama leen di maye pala jàkkaay yëpp dama leen di maye yi jàkkaay dama leen di maye jaayo leen dama leen di maye léegi nag ñi nga xam ne ci seen loko lay jaarale nag eh, foofu la dem bee càng foofu waaw foofu lay càng waaw foofu lay càng ñoo ngay tey dosi toog après délégué quartier ñu jokk ñoom itam ñu tey comme Mamour Diop ñu ngay tey suñ dosi jook am na sama ñaari doom yu góor dem ba foofu ak Coly Senghor mi nga xam ne ci karcam la dikkoon ànd ak ñoom ba ci Mamour Diop Mamour Diop mu ne yow kay sa kër mu ngi fi waaye duñu duñu duñu la duñu la wax ne sa euh, jox numéro kër pour dem foofu duñu ko def bu demee ba go nguur bi yam euh, digal nu digal nu pour ñu jokke après boobu la ñuy jokke bu ñu digalul ñoo ngi ko téye daal Mamour Diop di lii la wax waaw boobu ba léegi nag noo ngi toog boobu ba léegi noo ngi toog wasalaam